nuyu rek mu ci Dakar Net ñi ngi nekk fii ci westu Foire mbégte nag la am ak kontaante saa su nekk di jàkkaarloo ak yéen di bokk ak yéen lépp loo xamante ni rek moo di actualité ginnaaw bu ñu nuyoo ñi nga xamante ni ñooy suñu kilifa diine yi kilifa aada yi rawatina suñu jur yi mais tamit également équipe bi nga xamante ni ñoom la ñuy faral di àndal ndax lépp rek lu rafet ñooma waaye tey nag dafay doon lu spécial ci Dakar Net ndax tey dañoo war a waxtaanee li nga xamante ni mooy actualité ci série yi ñuy gis muy yoo xamante ni ay série wàllum dee la bi bokkut ak série bi ngeen di seetaan mais série wàllum dee la maanaam agression violence tey loolu la ñu war a waxtaanee waaye ma ci ànd ak lentu saabal mais aussi di ci ànd ak ki nga xamante ni sénégalais yëpp a ko bëgg de son vrai nom Vito maa lay ziar. ngi lay euh, delloo ziar Davida le frère tey c'est un honneur mhm. euh, fekk la fii ci plateau Dakar Net. Mhm. lii gars yi naan sotti ci ak def ci la xam mhm. naa sama kanam gi Sénégal set la ko gars yi gën a taamu sax waaye yii da ciy baax. Ah, ndax yow moom mënu <laughs> mënu ma laa bañal dara. absolument nuyu naa ñi nga nuyu it te di nuyu say euh, internautes ak say téléspectateurs. Mhm. te nag tu ma fais un honneur. Mhm. jàkkaarloog yow. di la poser ay questions. Mhm. nar waxtaan ak yow ci yu bëri. ni nga ko waxee noonu dañuy waxtaan ci violence. dañuy biral wala ma bàyyi la nga nga doxal. xanaa rek su ma tamit ma defaat beneen tuuti ci benn précision mooy. kii. day ndaanaan kul fajir ci fi mu nekk muy Sénégal set kër gi la maison lépp benn la uh-huh. comme ni mu ko waxee ci seen rubrique la saa su nekk muy taxaw seetlu xool lépp luy actualité ñu waxtaan uh-huh. ci uh-huh. du ñuy yem rek ci di dénoncer mais aussi dinañ ci indi li nga xamante ni bu ñu tiré les conséquences wax li nga xamante ni moo di solution yi kon dama lay bàyyi tout simplement rek nga laaj li dañuy waxtaane violence parce que Euh, seetlu nañu fan yi ay Dieynaba Traoré waaw euh, ñu réer mhm. toog lu yàgg mu ne dafa réer ñu ne dafa réer sax laay wax mhm. ñu jékki-jékki gis ko ci filaawo yi mhm. ñu ne boom nañ ko ba sànni ko foofu noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen cas yi nga xam ne ci kanam dinañ ci ñëwaat waaye dama gis ne Sénégal buñ ne société bi nga xamante ne société de paix la ñu taamu fi dal société bi nga xamante ne bu dal la ba dem ñu ñuy woowee réewum teraanga léegi réewum teraanga moom bu ñu demee ba mu bujj nekk réewum rey wala réewum euh, boom nit te boom si anam bu ñaaw sax war na noo def taxaw seet lu xam fan la ñu jëlee ci teraanga ba ci rey gi lan moo waral loolu kontaan lañuy def ak mbégte ci laaj bi waaye également man damay masawu waa këruñ ki nga xamante ni mooy jeena ba ak également ñi nga xamante ni boom nañ leen. Mhm. ndax Vito laaj bi dafa nekk lu am solo. Vito mhm. man je demande parfois est-ce que Sénégal bi ñuy wax naan dëkkub teranga la. Mhm. est-ce que teranga boobu mi ngi exister. wala doo ma ne sax teranga googu. moo ñu jureel tey ji loraange. ndax même les Ivoiriens dañ koy wax nee nañ trop bon trop con. trop con. ñu delluwaat tegaat ci ne bon une fois c'est bon. Mhm. Mais quand tu es bonbon, tu deviens bonbon. Mhm. Et quand tu es bonbon, foofu lañu toll. Sénégal man damay naan est-ce Sénégal am na am na bunt. Mhm. ndax dëkk boo fi gis. am na nooy duggee ci dëkk ba. mais ñun moom dañoo topp teraanga gi topp teraanga gi ba mu jural ñu loraange. jey na ba. nan la ñu toogee ba faat ko. bi muy tàggoo seen biir kër. li mu leen wax mooy damay dem su ma jum bokk ca ñi nga xamante ni dañuy lakki jën loolu la mm. tàggoo woon. lakki jën la tàggoo de. mais léegi nag bu ñu toogee ba benn jamono ñu dégg ni am na ka ñu rey ba dañu njotto ni sa ab tubaab la. Mm-hmm. mais il se trouve que bi ñu demee dañu gis ni ah effectivement kii du tubaab mais jayna ba la. dëgg la ñan ñoo def li ni mel. Mm-hmm. point d'interrogation. Mm-hmm. ñan ñoo yor wàllu sàgganante boobu. point d'interrogation. nan la ñuy def. Mhm. ba mu jóge fii. Mhm. point d'interrogation. Mhm. ana lan moo doon solution bi. Vito loolu mooy laaj bi tey. ma jàpp ni. bu ñu dee balbala gi di koy balbal. wolof yi li muy wax naan luy raam ci ñag bi lay jëm. waaye waaye bu demee ba dem ca ñag ba dina fa am kër. loolu ñu nar a dal. Sénégal sécurité bi. doyul. doyul. lu ñu mën a jël ay agent jël ay agent sécurité bi doyul ndax bu fekkee ni am nañ commencement mais amuñu fa ñu koy jeexalanteel. waaye Davida. Mhm. <laughs> tey danga nga may may sax ma lay dagg di la relancé bu la neexee ñëw si sa émission taxaw seetlu. Mhm. ba pare di la relancer. amul benn problème ni nga ma ko waxee sànq mhm. dégg nga. peut-être da nga am cri de cœur. te réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk. Euh, ku ne am nga ci sa ku ne am na loo ci war a wax. léegi boo ne sécurité bi doyul. foofu dama bëgg nga def ci taxaw seetlu parce que ñi nga xamante ne. Mhm. Euh, ñoo ngi ci wàllum sécurité. Mhm. dañuy seetaat Dakar Net. Mhm. parce que seen chaîne bi. macha allah vous êtes très bien suivi. merci sécurité bu doyul mooy lan moom. sécurité bu doyul. Vito na la leer na mooy ñi ñuy jël di leen di jël di leen di déployer. moo xam bu dee élection bi dafa jot. bu fekkee ni marché yi dafa am ñu interdire ñooñu ñuy utiliser ci force. ñooñu la ñu war a jël renforcer leen ba koñ boo ram di nga mën a dalal circuler nu la neexee mais dañuy gis maanaam ba ci tali yi sax circulation bi benn agent moo fay nekk ak benn ASP te boo buggee jël le Sénégal nga bëgg ko comparer ak yeneen pays yi mooy ñu jël comme ñun Sénégal ak France lañ nañ jël France France bopp koñ boo dem am na ay force de l'ordre yu fa taxaw France foo dem. tali bi mi ngi leer naññi France foo dem lumière bi mi ngi fa nekk mais ñun su ma la nee sécurité bi doyul gàcce ngaalaama ñi nga xamante ñooy suñu force de l'ordre yi mm-hmm. ndax gis nañ récemment ñu def benn opération ba mucc ay foofu nga xamante ni mooy ci ancienne piste bi mm-hmm. également def nañ ko foofu nga xamante ni moom ci ci ci cité des imbéciles mm-hmm. mais su la nee sécurité bi doyul mooy koñ yi dañoo lëndëm su ma la nee sécurité bi doyul mooy nit ñi ci seeni bopp dañuy làq sàcc di yóoxoo sàcc su ma la nee sécurité bi doyul mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo moom sàcc yi du ñu dénoncer sàcc yi waaye également su ma la nee sécurité bi doyul yow mii di dénoncer kenn du la nëbbal sa anonyme kon sécurité bi amul léegi nag wute na ak ñiy war a aar kaaraange bi doy na ñoom doyuñu la preuve mooy saa yu ñu raafalee ba ñëpp xel yi dal bu ñu ko defee ci semaine boobu beneen semaine bi pare nañ ci dootuñu ko defati kon sécurité bi doyul doo ma ne nag ba xam jumtuwaay yow yow méngoo ak ñoom lañ leen war a jox lañ leen joxul ba tax ni ñoom dañuy faral di décourager wala bu ñu commencé ni bërët bu leen ñëpp applaudir dañuy relâché bàyyiwaat. je pense que foo déggee ma ne la sécurité bi doyul dañoo war a renforcer waat sécurité bi ci côté éclairage dañoo war a renforce waat sécurité bi ci côté ñi nga xamante ni mooy force de l'ordre yi mais également dañoo war a renforce sécurité bi ci jël ñi nga xamante ni mooy population lambda bi surtout les quartiers les plus reculés. ñu teg fa même ay agents yoo xamante ni au moins dañuy def ay patrouille di dugg ci koñ yi mais patrouille yi ñu gis fii yëpp su ja su su weesoo si tali bi weesu ci li nga xamante ni mooy boîte de nuit yi weesu ci li nga xamante ni mooy auberge yi pare nañ si voilà pare nañ ci patrouille yi on vous rappelle que vous suivez cette émission taxaw seetlu tey exceptionnellement euh, mon frère Davida recevoir ba parce que dafa am cri de cœur bu mu bëgg a joxe bu mu leen bëgg a dégtal yéen ñii di internetu Dakar Net yi euh, Davida ñi nekk ci mbedd bi ak ñu nekk ci kër gi ñi nekk ci kër gi ñooy génn di dem ci mbedd bi parce que mbedd bi ay mala dewuñ fa absolument ñi dëkk ci biir kër yi rek mhm. ñoo génn nekk ci biir mhm. te dañooy wax cause yi cause violence yi mhm. te biir kër yi lan moo fa doxatul ba ña nga xam ne ñooy génnee ci kër yi léegi nekk ci mbedd yi. Mhm. di doon ay nit ñu violent. Mhm. parce que jikko ba nga yor biir kër rek. Mhm. moom ngay moom ngay indi ci mbedd bi. lan moo xew ci biir kër yi. mu doon nag vidéo question bu ma neex mais également question boo xamante ni dama la ciy sant muy lu pertinente. parce que je me dis que ni li ëpp solo. li ëpp solo. mooy ñu xam lan mooy pousser nit ñi ñuy génn ci kër yi. lan mooy pousser nit ki. parce que bu génn ci kër gi mel melokaan boo xamante ni bàyyeekoo ko woon ci biir kër gi. Mm-hmm. ndax bu dee éducation jox nañ ko ko. Mm-hmm. waaye ñu ci bari ñi nga xamante ni ñooy faral di génn ci kër yi. Mm-hmm. amaat beneen melokaan. dañoo saarlawu loolu ñu naan ngor. parce que dogguma la sax. sànq da nga ko wax ci say kàddu ba ne. Euh, dañuy làq sàcc. di di yuuxu sàcc ak sàcc. bu dee sàcc bi nekk na ci biir kër gi. Mhm. ñu koy bay bayal. Mhm. di ko laax. Mhm. di ko tongtongal. di ko neng nengal. ba mu génn def njombe. waaw ñun ñëpp ñu bëgg a yuuxu. fekk na ci biir kër ga nag la ñu commencé di ko nëpp nëppal. di ko nëpp nëppal waaye bu commencé woon def ay mbir rek. ñu jóg ci te dénoncé ko te kër gi tamit dina bokk ci. koñ bi. kër gi dina bokk ci. Euh, département bi ñu dëkk wala commune ba ñu dëkk mhm. wala région ba ñu dëkk mhm. kër gi sax dina doon Sénégal absolument kër gi dina bokk man ak Davida mhm. ñu dëkk ma gis ne doomu Davida day tux yàmbaa waaye euh, je sais pas ndax sutura sénégalaise wala teraanga sénégalaise. li ñuy wax noonu du ma may man man dëkkandoo bi. ma dem ne policier bi doomu diw de. dafa nekk si njombe. parce que même Davida buy nëbbu doomam. man su ma ko demee boole dina métti ci saasi de. parce que léegi sax police may nañ la nga def anonymat. Mhm. woote te kenn du xam kan moo woote. absolument mais bu ñu ñëwee jël ko jubbanti ko ci saasi. Mhm. yaakaar naa ne balaa muy ëppi loxo. Mhm. waaye léegi dañuy bàyyi li nekk ci kër gi. dem ba ëppi loxo génn ci mbedd bi ñun waa mbedd bi ñu bëgg a yooxu. mu doon nag ay ay ay analyses yu pertinentes li nga xamante ni moom nga fi wax. mooy li may wax de day revenir ci ngor. Euh, Vito ngor moo jeex. waaw gis nga euh, balaa may dee ñu naan xaw ma jeexul waaye jafe na balaa balaa may dee ñenn ñi dañuy wax naan ña ñàkk liggéey moo tax mu def lii. Mm-hmm. wala ñàkk am moo tax mu def lii pour man ana ngor. Mm-hmm. ñaata nit ñoo fi nekk di tedd te mu taa amuñu fa ñu jàpp. Mm-hmm. ndax suñu borom moo ne gémmiñ gi ma xaar la cee dugg maa ko cay def. sëriñ Saliou Mbacke nee na sa biir bii nga xamante ni mooy bii bu mu la yitteel sa biir bàmmeel na la yitteel. kon ñoom teel nañu wane yoon bi. nekkul parce que da nga nekk ci seen biir kër. ngeen nekk ñoo xamante seen loxo jotuñu sa ginnaaw kon da leen war a pousser ngeen génn ci mbedd mi wane jikko joo xamante ni seen waajur sax yareewuñ na ci parce tamit lu nekk ci kër gi du kër yëpp de am na ñi nga xamante ni dañuy jubbanti seen seen i doom am na ñoo xam ne dañoo yar seen i doom ñu lekk ñu bañ a lekk dañuy xam seen bopp dañuy yem fa ñu war a yem mais am na ñi nga xamante ni dañoo jur seen doom ba noppi démissionné ci seen i doom ñooñu démissionné ci seen i doom ñooy toog xam seen doom ji li mu am nii muy iPhone bi liggéeyu ci kan la ko jëlee doo ko laaj ndax la mu lay bokkal kon am na li nga xamante ni yaa ngi koy yar mm-hmm. am na ñi nga xamante ni leer nañ seen doom bu jigéen bii mm-hmm. bu génnee ci guddi gi fajar gi dafay dugaat fan lay dem mm-hmm. demoo ko laaj ndax saa yu ñëwee jox la dix mille au beau jour ngay xëy rek ñu ne la ah sa doom jii de moom la ñu jàpp ma nga ca commissariat central nga naan c'est-à-dire dañu ko liggéey melul nii fekk ni liggéey gi yépp yow yaa ko def te nag vidéo dinaa la wax ci benn affaire lii xew ci biir kër yi bari hmm. waajur bu góor bi du ko yëg bu dee doom bu góor bi la hmm. ndeyam mooy def lépp hmm. bu dee bu jigéen bi léeg également noonu la loolu nag mooy tax ñuy jur seen musiba musiba ko nag bu ñu demee ba àtt nañu ko ci kër gi ñooy wasaaroo ci mbedd bi ñooy romb benn vidéo muy dem nga bëgg a jël nangoo liggéey yi mooy gis benn visu muy dem nga bëgg a nangu saagam li ma ci gën a métti naa tout ça mooy saag bi ñu gis xamuñu lan moo nekk ci saag bi su doon dañuy jël saag bi dem seen yoon mais faaw ñu jam la te man xam nga la ma gën a ragal. Hmm. sama àdduna paaka. <laughs> bëri nga si te paaka yi ñu lay fril ma ne la boo yoroon loolu ak loolu di ngeen ko jox. wallaay léegi nag. il est temps comme ni nga ko waxee ñi nekk ci biir kër yi yor seen i sàcc bu wóor la ni. Hmm. mi ngi lor sa sa sa sa dëkkandoo. dëkk ko. Hmm. gis naa fi récemment ñoo xamante ni ñu ngi fi amal nañ euh, yoon. mais seeni papa yi ñuy génn ci ci plateau télévisé yi di wax lu nekk. Mm-hmm. naan suñu doom ji waruñu ko woon lii waruñu ko woon laa. Mm-hmm. am ñeneen sax ñoo xamante ni seeni doom. Mm-hmm. dañoo suicide wu actuellement ñu naan non c'est-à-dire est-ce que suicide la yow sa doom même bu doon sax dafa suicide wu yow te mu wóor la ni am na lu mu la doon causé ak doom lu mu neexee dëgg-dëgg c'est bon mais nag ñi nga xamante ne say dëkkandoo la ak la. kon am na yenn yoo xamante ne buñ la ko defee. da nga war a sant bu jël ku jël sa doom mu doon nekk ci koñ bi di samaay pagaay ñu jël ko dencal la ko da war a sant. Hmm. ndax bu jógee foofu changé nekkat beneen hmm. beneen nit. côté boobu tamit daal hmm. dama ciy ñëw. parce que wolof. dañuy tàmm wax ne mbaam gàtt na. waaye ci jur gi la bokk. absolument léegi boo waxee ba lim ña nga wax noonu xam naa peut-être sa yar walla sa sàng sutura moo la tax bañ a jaar ci ay tur waaye. violence bi mhm. yaakaar naa ne nit ki bu ñu ko jàppee mhm. ba dugal ko ci ab bërëb mhm. ñu koy oowee kaso dugal ko tëj ko fa pour jubbanti ko la waaye kaso yi tamit jar na ñu def ci taxaw seetlu absolument bu dee kaso yi dañ fee ñëw pour atténuer violence sax laay wax ndax dañoo wax maison d'arrêt et correction kon dañ lay arrêté ba pare corriger la mhm. waaye bu dee kaso yi moom mhm. kuñ fa jàpp ba dugal la fa mhm. boo fa génnee gën a doon ngandammaa bu délinquant est-ce que tamit violence boobu kaso yi nekkul di ko gën a amplifier amplification bi du leer xam nga ci lan la mooy norme yi nga xamante ni dañu ko respecté wul parce que koo fi gis moo xam directeur kaso bu mu ci mënti doon dafa am ay yoo xamante ni moom lay jot waaye également dafa am loo xamante ni moo ko fa teg waaye également mu am norme bi nga xamante ni moom la ñu kaso bi laaj ci ñu ne nangami nit la war a mën a jël tey bu ñu demee ba nga xamante ni respecté ñu norme ba nga xamante ni mooy ñañ fay jël muy détenu yi xamoo ni ñii ay nit lañ am nañ ndey am nañ bàyyi ñenn ñii ci ci biir am na loo xamante ni comme ni ñu koy waxee dañ fa dugg ñu jubbanti leen ba noppi delluwaat leen société bi war na ñoo mën a nekk loo xamante ni bu ñu génnee foofu mhm. dañuy baaxaat mhm. mais tey dugg da ngay bëgg a duggaat foofu mhm. parce que dañoo dem ba ñàkk jom da leen fekk. dañu dem ba maanaam een nekk fa sax moo leen fa gën a parce que parce que rythme boobu ñu fa dund. Mhm. maanaam souffrance yenn souffrance yi dañ la koy teg ba mujj bi yow souffrir rek moo lay neex. te loolu lépp man état bi lay interpellé. Mhm. état bi war na mën a xam ak ak yelleef fi nga xamante ni dañu koy wax. Mhm. foofu la war a njëkkee. dañuy dem ba li may gën a métti dans tout ça mooy les détenus su ñu ñëwaatee ci société bi dafa am beneen bët ñu leen di xoolee. yow doo moo leen di yóbbee li ni mel bari na ci ñi nga xamante ni soi-disant ay pénitentiaire xam lu mu ci mënti doon mm-hmm. bu ñu lay jël war laa dugal ci sa cellule mm-hmm. dañu lay tëdd mm-hmm. dañu lay wékk dañu lay jàññi yooyu yëpp dafa nekk loo xamante ni du encourager nit ki ba bu génnee mu changé da koy gën a bonal le cas de Assane Diouf damm nañ te fii tànkam génn na fii dénoncé wax jooju Guy Marius Sagna également ainsi de suite j'en passe ñoom ñëpp ku ci dugg biir rëbës boo génnee da ngay li nga xamante mooy conditions yi fa nekk te pour man loolu defet la ci état bu Sénégal bu fekkee ni moom day préserver li nga xamante mooy àq ak yelleef doomi aadama bi mais li ñuy gis nii poussé yi nga xamante mooy détenu yi ba bu ñu génnee kaso bi moo leen di gën a laaj ah c'est parce que y a un problème. y a problème euh, ñu ngi sur <laughs> Dakarnet <laughs> euh, dans votre émission taxaw seetlu euh, je suis avec Davida Davida ñu ngi ci cause violence yi <laughs> wax nañu kër gi. Mhm. wax nañu sécurité bi ci dëkk bi léegi nag dañuy génn kër gi dem ci pénc mi mhm. pénc mi mooy fi yëpp di daje. léegi ba njëkk ba dañ doon wax l'arbre mhm. à palabre mhm. dañuy fay dem toog palabre mais léegi réseaux sociaux la ñuy wax Facebook Instagram TikTok ak yu ni mel bu dee ñoom wala YouTube sax bu dee ñoom dañuy nekk di banaliser violence. ba xale bi nga xamante ne mu ngi toog këram. taamu gis deret. taamu gis dee. taa mu gis euh, nit jël paaka jam ko nit. ba xale boobu noonu. dee commencé banal ci ay bëtam. je me rappelle ñun bi ñu nekkee xale. man bu ma déggaan diw dee na. waaw man sama àdduna tukki woon na. dinaa toog ñetti fan wala ñeent yoo xam ne doo mën a nelaw. da ngay nëbbatu sax ba nga nekkee xale. doo mën a dem cimetière. déedéet ñi ma romb sax ay armée mais am na benn dëj bu ma demoon fan yële passé mhm. xale yu ndaw yi mhm. ñi nga xam ne ñoo am deux ans trois ans quatre ans cinq ans mhm. ñoo topp ci néew bi di wax laa ilaaha illallaah ni ko mag ñi di waxee doy na waar te defu leen dara léegi dama ne est-ce que pénc mi te pénc mi mooy réseaux sociaux yi ndax ñun ñëpp fa la ñuy dajee est-ce que néew di ci jouer rôle di banaliser violence ba dem yenn scènes yi sax ñu ñu koy wan diw rey nañ ko ñu photo diw rey ko diw photo Euh, seen bi ci boppam mhm. wan la ko mhm. diw fekk naa ko mhm. am na accident tànkam dagg na au lieu ñu xool ambulance bu ko jël ma tala jël sama téléphone taal ko di filmer diw boobu man taluma sax oo oh, jël sama téléphone composé 18 oo sapeur pompier man maa ngi tal lan laay firme man ba mun koo poster pour am vue yi loolu yëpp est-ce que société bi demuñ ba réseau sociaux yi banaliser violence ci suñu ci sunu jëmm yi. Mhm. ba ñuy dund ak violence bi ñun. Mhm. ba diw sax léegi yeewu ñu ne la diw ray na. Mhm. wala diw ray na. ak émission yi yenn émission yi nga xam ne day am ci rajo yeeg yooyu. sama jarba xëpp na ma acide. sama diw xëpp na ma fait divers yeeg yëpp waaw sama diw yooyu est-ce que demuñ léegi ba. violence boobu noonu bëgg a bokk. ci suñu biir ci suñu dund ñun. Mhm. macha allah laaj bi am na solo waaye man violence bi dippewu ma ko violence te du ko tuddee violence. Mhm. xam nga ban violence laa ko tuddee. Mhm. violence psychologique. mentalement dañ la wax dafa am ak physiquement. ak koo mën a doon ci àdduna. yàlla dafa defal xel pour ngay xalaat. mais tey suñu mental bi ñu yor fi yëpp mentalité bi. mentalité tubaab bu ñuul bi la esprit tubaab. tubaab yi yow xam nga ni farataaluñu dara. Mhm. yëguluñu dara te tey jii defe naa buy gars yi naan France dégage. Mhm. billaay bu France dégagé woon. Mhm. français yu noir yi nekk fi Sénégal. dañuy ànd ak français yooyu dem seen yoon. ndax yow boo demee ba jël étiquette tubaab bu ñuul. porté ko ci sa bopp. mooy waral dese yi nga fi gis ni léegi dañ koy banaliser nii lañu def c'est-à-dire dem na léegi ba ci armée yi sax. nit ki day faatu nga gis koo nekk ci whatsapp am di whatsapp naan saa waay de moo faatu. Mhm. moom moo faatu moom lañu denc nii. wala dem ba ci di néew bi di sënab néew bi. yooyu ñoo fi ne. Mhm. kon esprit tubaab boobu nga xamante ni moo ni ñu sonal ñun. Mhm. moo ñuy orienté ci foofu nga xamante ni baaxul. réseaux sociaux yi gis nga nu mu mel léegi nit ki sax bu bu bu décédé léegi gars yi commencé rip rip rip rip lan mooy rip. je pense que ni nit ki bu làqoo li ci ëpp solo nañu ko ñaanal mais riib riib riib koo ci ne lan may riib mënu la wax lan may riib balaa may dee li ma gën a metti ci Sénégal mooy lan yenn ci jikko naafik la ndax koo xamante ni musul ta def lu baax ba nga apprécier ko mm-hmm. bés day ñëw mu faatu rek nga commencé jël sa xalima di bind dëgg la yàlla boo dee nga naan les révélations les dernières révélations après sa mort di commercialiser ci ki nga xamante ni moom mooy aji ki dem te on ci biir site yi ñoo ngi koy gis ci biir télé yi ñoo ngi gis ci plateau yi ñu ngi ko gis fépp dem ba di mort la mort waaw ñu ko def ñu ñu bëgg ko commerce mhm. léeg-léeg nga ñu la dernière minute lii la waxoon après sa sa sa kii lii la waxoon nit di dee ñuy génnee sax audio. waaw whatsapp yi mu envoyé woon di ko statut. ku ci nekk di di koy def mais loolu jikko ko jikko loolu du jikko sénégalais bi ñu xamoon. maam yi dafa amoon loo xamante ni dañ ñu ko yoroon dugal ko ci ñun. Mhm. mooy li may wax rek naan bu ñu jàpp ni ku mag dëgg mooy ku yor sikkim déedéet. Mhm. dañu ne la nit ki bu fekkee ni bëgg nga xam dëgg-dëgg mag mooy ki mat. Mhm. waaye li may faral di wax te dama koy def ay rim mm-hmm. nee naa Sénégal dëkk bi ñu jàpp ni teranga la mm-hmm. bari na ñu koy faral di soppeeb loraange mm-hmm. dëkk la boo xamante ni jigéen ñi dañuy tëmbal waaye tamit góor ñi dañuy ëmbal mag yi ñoom ñooy xërëm ngir bëgg a dërëm wër na xaarimal Moustapha man maa leen yërëm dafa nekk loo xamante ni réalité la Sénégal foofu lañu ñu toll nit ñi il faudrait que nga toog wax ak ñoom ci bët ak bët ku ci wéet xam sa bopp ku ci wéet it xam sa morom est que dinañ la déglu xam nga le problème Annick mm-hmm. dañuy faral di wax naan parfois la parole perd ce que le silence a gagné mais philosophe bi nee si chacun savait ce que chacun disait sur chacun mu ne la terre se reterre donc on n'a besoin tout temps ñuy wax ñu lay déglu ñu lay wax ñu lay déglu du loolu moo tax mm-hmm. li ëpp solo mooy ñun li nga xamante ni moom lañ leen yaree woon ngeen indiwaat ko ci penc mi mais nit ki bu fekkee ne la ñu la yaree da nga ko bàyyi indi li nga xamante ni balaa may dee ñu naan vingt et unième siècle mooy lan yow leen dundee vingt et unième siècle ñoom lan lañ dundoon deuxième siècle moo loo ci gis da ngay jommi loo ci gis mënuloo am doom ju baax mm-hmm. loo ci gis foo jaar di doo fa jaaraat mm-hmm. loolu da ngaa bàyyi sa yoon da ko bàyyi sa yoon gis ko jàpp yoonam mm-hmm. nasaraan si boo demee dina la wax kuy seen maam wallaay fii koo ci woo ne ko kuy samaam du la wax dara mais bu dee rëm tam itam mun nañ la ko wax bu dee yaa ak sa mbay mun nañ la ko wax bu dee makaani ko mun nañ la ko wax muy dee terme yoo xamante ni bëgguñu loolu gëmuñu loolu sénégalais bu ñu ko waxee dañoo war a jël ci moom modèle mm-hmm. dañoo war a jël ci moom référence mais ñun daal kenn xamul nu ñu mën a qualifier parce que tubaab yi ñuul yi ñoo fi nekk mm-hmm. ñoo lay romb ci biir marché bi du ñu la nuyu mm-hmm. ñoo lay romb ci biir osan bi du ñu la nuyu ainsi de suite ainsi de suite j'en passe ainsi de suite ainsi de suite j'en passe Euh, si vous nous rejoignez xam naa ne peut-être yéen a ngi gis cri de cœur bi euh, Davida nekk di def te yéen ñi di seetaan sax j'espère que wala je pense que ne vous êtes nombreux à vouloir faire les mêmes coups de cœur à vouloir faire sortir les mêmes émotions que lui waaye yàllaa ko fi teg rek te li ngeen bëgg wax la leen di waxal Davida ah, yëf yaa ngi ñëw buur ni ko <laughs> wolof di waxee wala yàlla terme de l'émission mm-hmm. tubaab di ko waxee noonu mm-hmm. léegi wax nga cause wax euh, conséquences yi sax jotoo ci biral noonu mm-hmm. waaye conséquence weesuwul ne société bi xàmmeetuñ ñu mm-hmm. parce que violence dina dem psychologique mm-hmm. dem verbal dem ba ci corporel euh, te dina yàq lu bëri léegi euh, te li Youssou doon wax rek xol yi bu ñu woowee yërmande dootul am te bu yërmande amul rek askan bi daal di tas wér na solution mhm. la ñuy jeexalee mhm. jotaay bii nii mhm. pour yow loolu lan moo ko fi mën a génne solution bi daal mooy ñu am vision jël suñu bët bi teg ci foo xamante ni duñu fa jural daray pression ndax foo toog ñu ne la attention kon boo amee autorisation da ngay jéem a doxal sa rédaction boo bëggee am dëgg-dëgg mention et vous savez la plus grande mention xam nga mooy lan mooy nga comprendre que démb amoon na te ñu sukkandiku woon ci démb tey ñoom ñoo fi réussir mais soo fàttee ni démb am na. Mhm. li ngay dugg. Mhm. balaa may de ñuy jël benn terme demal kenn du la téye. waaye demal demal ba fi nga xamante ni dalee léeg-léeg da ngaa war a mbëkk di nga bëgg ku la téye. wallaay. balaa may de ñu jël terme yaa koy toj. tojal <laughs> yow bu war a bañ ba tëdd si naaj bi ndax da war a defar waroo toj. terme la yoo xamante ni ñoom ñoo ko dugal suñu réew. yaa may daaneel. yaa <laughs> ku ci nekk xam na ni bu ñu la daaneelee jamono bi ku daanu ñu romb la fa. dafa nekk loo xamante ni du solution dëgg-dëgg solution bi moo ñu ressource waat. Mm-hmm. xamaat ñun ñoo ñan bu ñu toogee suñu biir kër nañu jàkkaarloog suñu seetu. Mm-hmm. simee ko ba seet ne man qui suis-je. waaw qui suis-je. point. Mm-hmm. on n'a pas tout temps di di di valoriser suñu bopp. ak koo mën a doon ana Seydina Mohamed dem na. Limaamu Laay dem na Baye Niass dem na. kilifa yëpp dem nañ ak koo mën a doon. jàppal ni tu n'es pas milliardaire ni millionnaire. tu n'es que simple benn ordinaire. même si tu as des partenaires. jàppan ni bés a ngi ci bés yi nga jàkkaarloo ki nga xamante ni moo yilif partenaire yëpp muy borom kun fa yekkun. wallaay wax voilà kon Davida ah, maa ngi lay gërëm tàggool. xanaa di am mbégte. Mhm. ak kontante feggoog yow. Mhm. waaye tamit di sant ñi nga xamante ni ñoo nekk ci suuf ak di di commenté. Mhm. te xam ni lépp lu ñu wax rek amaan na ni yéen ñu ko gën a xam. comme ni mu ko Vito waxee dañu fi toog di wax. waaye te yéen ñi ñuy seetaan am na li ngeen xam te nekkuñu fi di joxe benn leçon de morale waaye tamit lépp loo xamante ni rek da caa jub borom bi la lu ci dëng man Davida la hmm. di jaajëfal ñi nekk ci ginnaaw yor rési bi ku ci mel ni Abdou rawatina nag sama princesse bi di bisou hmm. ayca kon babaay ah, waa Dakar net